sayyidina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi al-ghurri al-mayamin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu jaamu gi ci def yépp ñoo ngi nuyu ak di ziare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te yokk aw fanam may ko wér gu yaram ba mu yeggale mbooleem naalam yi ci ak kattan ak biir tañ ànd koog moom mbokki jullit yi dañoo del si tey ci nga ngëneel yi nga xamante ni tuub ak dellu ci yàlla am na ko ndax bokk na ci ngëneel yu màgg yi nga xamante ni ak xéewal yu màgg yi suñu boroom jagleel jaamam yi mooy ubbil gim leen ubbil buntab tuub ba buñ defee ay njuumte ñu may leen ñu mën a dellusiwaat ci moom torox lu jégg lu mu jéggal leen loolu mu leen ubbal ubbil buntab tuub nag bokk na ci xéewal yi gën a màgg te sunu boroom itam tuyaaba ju rëy ak yoor bu rëy la dël ki nga xamante ni dafay tuub di dellu ci yàlla tax na mu waxoon ci suuratul xijri laaye ñeent fukk ak juróom-ñeent doon wax ak yonent bi alayhi ne ko nabbi ibaadi anni ana alxafuru rahim yow muhammad waxal sama jaam yi ne man mii di yàlla maay jéggalaakoon bi maa yërëm itam képp ku ma soob ci àlaxira mu waxaat feneen ci suuratu nuux laaye fukk ba ca fukkeel baak ñaar fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dafa wax ci làmmiñu yonente yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam muy nettali moom yonente yàlla nuux fam jaara gaayam ya muy koy nettali borom bi te xam na lépp naan ko yow borom bi day jaar naag fii ak sama gaay yi nee naa leen jéggulu leen seen borom xanaa xamu leen seen borom mooy jéggalaan kon ba su ngeen ko jégguloo tuub dana wàcce ci asamaan ndox mu bari dana leen jox ay xéewal dana yokk seen alal yokk seen ak njaboot dana leen defal itam ay tool yu naat dana leen defal itam ay dex yooyu yëpp kon mu mel ne ku dellu ci yàlla ginnaaw ba mu defee njuum te tuub loolu lépp sunu borom mën na ko defal naka noonu itam sunu borom tabaraka wa taala wax ci laay ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ca suratul baqara ne inna allah yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahirin yàlla ku sopp ñiy tuub la waaye ku sopp ñiy laab la itam te nit ki nag rawatina julit bi lépp loo xamante ni day tax mu bokk ca soppee yàlla war na ko xante woo góor góorlu tey dellu ci yàlla nag di tuub bokk na ci liy waral sunu boroom sopp la mu waxaat feneen ci laaye fanweer ak benn ca suuratu nuur ne wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun laallakum tuflixuun na ngeen dellu ci yàlla tuub yéen ñi gëm yàlla ndax yàlla ngeen texe mu waxaat tam ci laaya téeméer ak fukk ca suuratu nisa ne wa man yaamal suu'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha gafuran rahima nee na ku jëf-jëf ju ñaaw wala nga wax ko ba xam ne tooñ nga sa bopp ndax tooñoo kenn ku dul sa ndax def ay bakkaar mooy tooñ sa bopp du wàññi dara yàlla waaye yow mi koy def nag yaa tooñ sa bopp mu ne ku jëf-jëf ju ñaaw wala nga wax ko xam ne tooñ nga sa bopp wëlbatiku dellu ci yàlla jégglu ko da nga fa fekk borom boo xamante ni ab jéggalaakoon la waaye ku bari yërmande la itam mu waxaat itam ci laaye juróom-ñaar fukk ca suratul furqaan ne illa man taaba wa aamana wa amila amalan saaliha fa ulaika yubaddilu llahu sayiaatihim xasanaat wa kaana allahu gafuran rahima mu ne ñu dul ña nga xam ne dañoo tuub nag te gëm yàlla te ba ñuy tuub fekk ñu gëm yàlla ba noppi wëlbatiku nangoo jëf-jëf ju baax nee na kat seen tuub googee bu sellee ba sunu borom nangu ko bàkkaar yañ defoon sax sunu borom mën na ko wëlbati soppaat ko ay tuyaaba ak rafet rafet ak jëf ju baax ndax yàlla mooy jéggalaa kon ba mooy borom yërmande ji itam tuub nag boo gisee alquranul karim soññee ci noonu wone nga ne lim am ak jéggulu yàlla nga ne lim am moo tax itam nit ñu baax ñëpp itam dañ faa jaar rawatina yonente yàlla yi alayhimu salaatu wassalaam dañ daan gaawantu di def di jëm ci tuub ak di dellu ci yàlla bu ñu seetloo yonente yàlla aadama alayhi salaam mook soxnaam xawwa ba baleen sunu borom tere ñu lekk ca garab googee te seytaane man leen bañ lekk ca ñu xam ne juum nañ dañoo wëlbatiku dellu ci seen borom tuub ne qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin laaye ñaar fukk ak ñett ca saaratu suratul araf dañoo delluwaat seen borom ne ko sunu borom day nañ ne lii ñu def te mooy xëtt ndigal defuñ ko ku dul suñ bopp defuñ ko ku dul suñ bopp ñun bopp dong lañ tooñ waaye tooñu la boo ñu jéggalul nag te yërëm ñu danañ mujj mbokk ca way perte sunu borom jéggal leen naka noonu itam yonente yàlla noox alayhi salaam xamoon na ne tuub noonu la amee solo moom la wax alxuraan di ñu ko nettali ci laay ñaar fukk ak juróom-ñett ci suuratu nuux rabbi xfir li wa li walidayya wa liman daxala baytiya mumina walil muminina wal muminat wala tazid alzalimina illa tabara yow yàlla yàlla nanga ma jéggal jéggal samay ñaari wayjur ak képp koo xam ne nangul na ma bay dugg sama biir kër yàlla na nga jéggal gëm yu góor yi ak yu jigéen yi waaye nag tooñkat yii di yéefar yi moom bul sa digganteeg ñoom bu mu neex mooy bu leen dolli lu dul ak alkande rek loolu itam noonu ko yonent yàlla aadama defe yonent yàlla noox defe ko noonu yonent yàlla ibrahim alayhi salaam itam xamoon na ne tuub lu am solo la maa ngi alxuraan nañ koy nettali ci laaye juróom fukk ak ñaar ca suuratu Shu'araa walladi atmau an yaxfira li xatiati yowma diin yonent yàlla ibrahima nee na kii kenn dong mooy ki nga xam ne moom laay xemmeem di bëgg ci moom mu may jéggal samay ñaawteef ak samay bàkkaar bis pénc kooka mooy yàlla rek tabaraka wa taala noonu ko yonente yooyu defee noonu la ko yonente yàlla Muusa alayhi salaam itam xame woon ba waxoon moom ak mbokkam moomee di sayidina Haarun ca laaye téeméer ak juróom fukk ak benn ca suratul Araf qaala rabbi agfir lii wa li wa adxilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin yow yàlla yàlla nag ma jéggal man Muusa jéggal sama mbokk mii di Haaroon yàlla nag ñu tàbbal ci sa yërmande ndax yow yaa ëpp yërmande képp kuy yëramaate loolu itam yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom itam kat sunu borom xamaloon na ko ne foofu la nit ñu baax ñi ak yonente yi la fi jiitoon jaaroon ci ku ci bu ci am aw wala njuumte dangay dellu ci moom moo tax mu ne kon la annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li dambika wa lil muminina wal muminat ca suratu sayidina muhammad laayey fukk ak juróom-ñeent loolu itam mu ko ci doon xamal ne jéggulu ta ñàkk أكبر الله أكبر أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول sunu

foofu yonente ya jaaroon alayhim salaatu wasalaam fala yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jaar ba sunu borom ne ko faalam annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li dambika wa lil muminina wal muminaat loo xam ne yonente yu yëpp dañ caa jaar nag ku gëm yonente yooyu war nga koy bàyyi xel te mooy tuub moo tax jullit yëpp itam war a àndandoo di tuub jël di dellu ci borom bi tabaraka wa rawatina suñ defee ay njuumte ak i bàkkaar alxuraan ak ñi nettali fi jullit war a taxaw ci laaye téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ali imran wa ma kaana qawlahumu illa an qaalu rabbana xfir lana dunubana wa israafana fi amrina loolu jullit yépp bokk mooy suñ defee bàkkaar ak i njuumte ak i rëcc la war mooy delluwaat ci borom bi tabaraka wa mu am xadis boo xamante ni tam sunu borom ma ngi cee wax ne ci xadis qudsi yaa ibaadi innakum tuxti'uuna billeyli wannahaar wa ana agfiru agfiru dunuba jamia yéen a ngi nii dëkk ci ay bakkar guddi ak bëccëg ngeen di def ay bàkkaar yéen sama jaam yi waaye na leen wóor man maay jéggal jéggale mboolem bàkkaar yépp kon fastaghfiruni aghfir lakum day leen sàkku ci man njéggal bu ko defee ma man leen a jéggal mooy mun leen a ñàkk a sabablu tuub nag jëm ci yàlla ndax sunu boroom mën a jaar ci loolu ba jéggal leen loolu nag mooy firi li alquran wax ne laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia bu leen naagu ci yërmaande yàlla ndax yàlla mën naa jéggale bàkkaar yépp moo tax itam eh, sayiduna abu hurayra radiallahu anhu wax ne déggoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne dafa giñoon sax moom yonent bi ne walladi nafsi bi yadihi giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom ne law lam tuznibu la dahaba allahu bikum su ngeen toon def ay bàkkaar xanaa dëkk ci ak njub rek nee na ah, la dahaba allahu bikum yàlla dina leen fi jëlee wala jaa bi qawmin yudnibuuna fa yastaghfiruuna allaha fa yaghfira lahum yàlla dana leen fi jëlee andi fi nit ñoo xamante ni dañuy juum ak def ay bàkkaar wëlbatiku nangoo jéggalu yàlla ba yàlla mën leen a jéggal ndax loolu rek mooy teqale diggante nit ak malaayika malaayika moom du mooy yàlla waaye ginnaaw nit nag mën naa mooy yàlla bunt bi ko sunu borom ubbil nag su ko wàccee rek day dugg ci cadre malayka yi te loolu itam aw xeet la muy aw xeet ñu jëlewaat ci abu musa al ashari itam mu ne yonente bi alayhi saato wasalaam nee woon eh, bëccëg gu ne wala guddi gu nekk yàlla dana tàllal ab loxoom ngir ñi defoon bakkaar ci bëccëg ba mën a tuub delluwaat ci yàlla mu jéggal leen nee na itam bëccëg gu nekk yàlla dana tàllal loxoom ngir ñi defoon bàkkaar ca guddi ga mën tuub ngir mu jéggal leen nee na loolu nag du ko bàyyi xatta tatlu assamsu min maghribiha ba keroog àddunay tukki nee na du ko bàyyi kon nag loolu ku ko xam war nga nag waxtu nekk nga dëkk ci ay tuub ndax loolu mooy mën a raxas say bàkkaar ci boo sellalee tuub ga tuub nag nekk loo xamante ni <clears throat> am na solo fa borom bi tabaraka wa baa nga xam ne mën nañoo wax ne bàkkaar lum rëy rëy rëy rëy bu nit ki delloo ci yàlla te sellal te rëccu bàkkaar boobee mu defam sunu borom mën na koo jéggal ndaxte kat ña nga xam ne dañoo jàppe woon almasih isa nu maryama ñu ne woon yàlla la yàlla la ñooñee sunu borom daf leen a wëlbati ne leen tey ngeen a tuub ña ne woon itam euh, ña jaam woon Isa nu Maryam def ko muy seen yàlla itam sunu borom daf leen a xiirtal ci tuub ña ne woon Isa ibnu Maryam huwa saalisu salaasa kenn la ci ñetti yàlla yitam sunu borom daf leen a xiirtal ci tuub ña ne woon Uzayru ibnullahi la doomi yàlla itam ñooñu daf leen a xiirtal ci tuub ña nga xamante ni dañ ne woon dañoo ñàkke woon kersa yàlla ba ne sax yàlla du joxe ndax dafa mel ne loxoom dañ koo jéng ci ginnaawam ne yadullahi ñoo ñooñee ko waxoon lañ wax lam rëy rëy sunu borom daf leen a xiirtal ci tuub ñene woon inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ñene woon yàlla amul dara ñun ñoo am dara lañ wax lam rëy rëy sunu borom daf leen a xiirtal ci tuub ñene woon yàlla am na soxna ak doom lañu seen wax ja lam rëy rëy sunu borom daf leen a xiirtal ci tuub ñoo ñëpp la boole ne leen afala yatubuuna ila allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim ca almaida laaye juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoom ñëpp la moo maase àndal leen xanaa mënu leen a tuub dellu ci yàlla te jéglu ko boobaa da fa fekk borom boo xamante ni ab jéglaa kon la bu bari yërmaande yéefar yi nag li ñuy bon bon bon bon ak la ñuy bokkaale yàlla yépp sunu borom tëjutoon bun tëb tuub ci seen kanam ndax nee na lan waxoon ca aaya juróom ja suuratu tawba fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakata fa xallu sabilahumu inna allaha gafuru rahim nee noon yéefar yooyu kat buñ nangoo tuub nangoo taxawal julli nango natt asaka seen yoon nekkatut ci ñoom ndax yàlla mooy jéggalaa kon mooy borom yërmaande ji ba ca naafiq yi sax ak la ñuy doy waar waar ak seen taxawaay la muy yéeme yéeme nga xam ne sunu borom waxoon na ci ñoom ñoom ca e, ndéttal sawara la ñu nekk innal munafiqina fi darakil asfali min an naar walan tajida lahum nasira waaye am na ñum ca génnee mooy ña nangoo ca ñoom illa alladina taabu wa aslahu wa atasamu billahi wa axlasuu diinahum lillahi fa ulaika maa almuminin wa sawfa yuti llahu ajran azima laaye téeméer ak ñeent fukk ak juróom jàpp téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn nee na yooyu la bon bon suñ tuuboo tuubee nangoo dellu ci yàlla lañ yàqoon ñu defaraat ko mooy ci yàlla sellal seen diine nee na fa jullit yu baax yi mujj ëllëg bis pénc ci teraanga fa la mujj te ñooñee sunu borom ma ngi leen di dénk di leen liggéey itam tuyaaba ju bare bari kon ñu xam ne tuub googu ñu doon wax nag Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax nañu sarti yi sart yi nga xam ne su dajee ci kiy tuub sunu borom mën naa nangu ak tuubam wax nañu ko ci aljawharu nafis wa min surutiha nadamatun ala ma faatahu min al musjala nee na bokk na ci sarti tuub nga réccu la defoon ci ay bàkkaar réccu ko fa yéene doo ca delluwaat wa niyatun fi ma baqi min al umr adama awdihi li ma yadur ànd ak mu yéene nag li des ci dundam bàkkaar ba mu defoon ba tuuboon ko fa yéene wu caa delluwaat te di ko tey wa an yakuna taarika al isyaani in kaana asiyan bila tawaani bàkkaar boobee nga defoon tam ba tax nga koy tuub te réccu ko da koy bàyyi ca saasa nag bañ caa delluwaat wa hakaza raddu almadalimi jamia yuaddu min surutiha inda almutia la nga tooñoon ci nit ñi ci ay àq ku nekk na nga ko delloowaat àq ja jam moomoon kon tuuba ngi noonu di bunt bu yàlla ubbi waxtu wu nekk di ngànnaay loo xam itam jullit saa su tilimee ci ay bàkkaar man na caa dellu kon nañ ci dellu ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla gën a xiir ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal sëriñ bi ba mu yeggale mbooleem naalam yi tañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم وقال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وزمرة المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة القرآن وآية العصور كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم kaana lakum saabiqan fil saa'iqan fil aaxirati ilaa radaa wa ridwaan wa niiraan kayfa laa wa huwa al-lu'lu'u wal marjaan wa ya'murunaa bil birri was-silati wal amaan wa bil adli wal ihsaan wa iitaa'i zil qurbaa wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkar والإسيان وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفقنا الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان وأجارنا بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان آمين الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بل بين الفرقة كالبنان وكالبنيان والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس إن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو المؤمن الكامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقاروا نفوسهم وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدين والدنيا فبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديوان fa yatajalla lahu llahu birrahmati walxanaan summa yusabu alayhi sawaabu wa ridwaan wa yaquulu salaamun alaykum tibtum yaa ahlal iimaan udxulul jannata bil amaan wa qad radiitu ankum bimaa sabartum minal imtixaan ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى الله عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhi sabbih isma rabbika al-a'laa allazii xalaqa fa sawwaa wallazii qaddara fa hadaa wallazii axraja al-mar'aa fa ja'alahu ghusaa'an nahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa'a allaah innahu ya'lamu al-jahra wa maa yaxfaa wa nuyassiruka lil-yusraa fadhakkir in nafaati dhikraa sayadhakkaru man yaxshaa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 سمع الله لمن حمده الله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 أعصابهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا assalaamu aleykum.